mbégte ak contentement dalalaat ko moom mi Augustin Tine dalal ko fi seen émission pencum Sénégal di responsable politique fële ca Thiès nekkoon fi ministre des forces armées Augustin Tine maa ngi leen waaw maa ngi lay fay. Hmm. vraiment maa ngi kontaan euh, ci invitation bii ngeen def. parce que vraiment lii dafay wane ne euh, ministre bu nekk war nga mën a jàkkaarloo askan Sénégal wax leen. ci sa xalaat ci réew mi vraiment kontaan naa. jërëjëf jërëjëf. Augustin Tine noo gisee euh, réew mi jamono jii nii nu mel nii. mais réew mi jamono ji macha allah parce que xam nga kenn ku nekk fi nga nekk yaa mën a xam lan la. Mm. mais de toute façon ñun poste bi nga xam ne président Macky Sall jox na ma ko. Mm-hmm. ma nekk ministre maa ngi koy doxal. te waa Thiès tamit ñu ngi ànd ak man parce que ñu ngi nii toog. Mm-hmm. fu ma jóg rek damay ànd ak ak waa Thiès. lu may def dama ci boole. Eh, waa Thiès rawatina nag o fogele séeréer si naanun yi am naa ko macha allah macha allah Augustin boobu ba léegi ñu ngi wax ci dialogue national bi dégguñ la ci benn yoon waaw mais dialogue bi duñ ma ci dégg parce que man du ma chef de parti dama nekk APR te APR bon ñoom ñu ngi dugal seen loxo ci waxtaan bi donc li am solo moom mooy et na parti yëpp dem waxtaan pour ñu mun a am solution ci li nga xam ne moom la ñu bëgg a defar ci réew mi. en tout cas man fidèle laa ci président Macky Sall. macha allah ndax région de Thiès laa juddoo. et foogale séeréer ndax sib na noonu foog le fana taxana di wax séeréer yi nekk ci région de Thiès yëpp ñu ngi topp sama ginnaaw. ngir président Macky Sall lu mu bëgg rek ñun dañu ciy taxaw. moo tax tey sax ñu am ndam ci kaw opposition bi. macha allah moom lañ dalaloon. moom Augustin Tine lañ dalaloon fii suñu émission pencum Sénégal Augustin te ñu invité la nga toog fii nii nga toog ku ne toog na fii mais benn question moo nu tëb boobu ba léegi kenn mënu koo tontu waa Thiès yebal la nga ñëw fii ñu am yaakaar ne fii boo fi toogee bu ñu la posé question bi nga ne ñu réponse bàyyi nii te am nañ yaakaar ne di ko tontu ne responsable politique nga fële ca Thiès di doomi Thiès pire. Mhm. muy ci troisième mandat bu président Macky Sall bii. waaw léegi lan nga buggoon ma wax nga wax ñu ci lu leer ne boobu ba léegi kenn waxuñ ci day am ak du am ak président ku ci wax gis nga ni muy def nii ngi ñu invité la fii. waaw nga leeralal ñu ci rek. xam nga ñun ay séeréer nañu. waaw séeréer la te séeréer yi dafa am façon séeréer bu ne. Mhm. am na séeréer saafeen séeréeru noon am séeréeru jiwaalo am séeréeru saalum mhm. donc laaj bi nga ma laaj ni jëm ci li nga xam ne mooy lakku séeréer def na ko dinaa la ko leeral ndax boo ma laajee ñaata séeréer ñoo am ci réew mi ah. dinaa la ne boo demee ba Morolan am na fa séeréer yoo xam ne bu ñu nuyoo ñii dañuy wax ngiiropo eh. ñii ne yaaree jam boo ñëwee ba ndool ndool nag mun nga ne o fogalee séeréer boo demee ci eh. beneen séeréer yi nga xam ne ñooy kaawoon jàpp fa ca ca Saalum hmm. dangay wax façon bu nekk ak ni ngay ne ni nasit na nun teg na waana eh, waaw dafa mel ne déggoo ma de. ah dégg naa la kay ndax man wax ji sax ci boppam. waxuma ñaata séeréer ñoo am de. dama ni Augustin. waaw troisième mandat bi lan la mais waxuñu ñaata séeréer moo am. Ah. dañ ne Augustin. loo xam ci troisième mandat wu président Macky Sall mais waxuñu ne. Ah. Augustin loo xam ci séeréer yi. ah, ah iyo. iyo. nde nde tip na hun Augustin. defa foona paroisse. semoris daje abe sani nafaxana tinna tin tin na fogoye fay fay na faxole juuf juuf ne faxna sen sen na timna taxum na ni fana fax a tib no tooxe saate njambara nafaxna o gisene wax de de de foole de foole nib na simna nun morolani modlo faana faana Modou Lo Modou Lo mbër. Modou Lo mbër Modou Lo mbër. da nga dégg ne fii dañuy bëri fii wala. faxana tig na yëkkani de de afaaxa tig na sit na nun mbooci na faana. na roi des arènes na dit na ta naa ka ndóol ndóol faxa jaaxana la caaxaan faxa. gis nga wax léegi loolu noonu loolaan la loolu noonu. de de de ref dañoo bëriwul te man damaa bokk ci premier séeréer yi ci bokk. te boo boo bëggee wàññi séeréer yi dafay xaw a bëri naana fo xoon nata tig na tig na yekeni ba nafa xana a fa xana séeréer tip na nafa xa taaxeen Augustin dafa mel ne question bi déggoo ko de Diouf Faye Sène ni fa xana tig na toxoon jegaan jegaan jegaan ne fe jegaan ndol ndol ne fa xatana roqoya roqoya ka kan mbisan mbisin mbisin njiran no foog no o neke na feere seereer naan tig na taxul taana faxana ka bi ngeen ñëw olof lañ la posé hmm. nga tontu ñu ci olof troisième mandat bi nga na faxana Macky Sall doone feere eh, na foono mangade mangade ne simna jiwaalo saan na faxa a jiwaalo a jiwaalo a ngele nga jiwaalo jiwaalo